nga génn Sénégal dem. man kay alors nu dañu wax ne bu la ñuy dañ ko dañ ko. jëlal parce que président de la république mu ngi woon Bakel mu ngi woon Bakel moom bi ñu ko arrêté sax taxaw na mais yéen xam ngeen ne Sénégal c'est pas parce que président de la République mu ngi dem fenn que ñun citoyens yi amuñu droit circuler donc loolu bon on l'a plaidé on a on l'a expliqué au juge on lui a rappelé que le Sénégal est un pays démocratique n'est-ce pas et que le juge c'est lui-même qui doit garantir aux citoyens la liberté d'aller et de venir donc vraiment procès bi je pense que Sénégal le Sénégal a intérêt à ce que ñu bàyyi Bougane Gueye Dany waaye mhm. parce que c'est une violation flagrante mhm. des droits et libertés d'une personne. sàkkateefu le procureur ci trois mois yu bëgg ñu tëj Bougane ci ak ak ak ak bu cinq cent li ma ci indi comme leeral xam nga procureur moom dafay laaj rek. Mhm. c'est une partie au procès. donc euh, donc lecture biñ ci mën a am. bon mun na nekk ñaar sur le plan politique ça peut signifier qu'on peut qu'on veut empêcher à Bougane de faire, de faire sa campagne électorale. Parce qu'après tout, il est candidat, n'est-ce pas, à, à, la députation. Et il est sur les listes et il doit faire campagne. Donc, pour une trois <laughs> mois, ça veut dire qu'il ne fera pas campagne. Donc, si le procureur demande ça, ça veut dire qu'il cherche à éliminer un candidat à l'élection législative. Euh, Bougane ba léegi moom dafa taxaw ci li nga xamante ni moom euh, wax ba kii ba kii démb foofu Bakel. Hmm? dafa mel ne que loolu la réitéré biir tribunal bi. waaw mais loolu la wax moom. mais mais xam nga xam nga le cas de Bougane fait ñun ñëpp on les a vus en direct amul ku ump li xew gendarme bi arrêté na ko ne ko sama supérieur hiérarchique moo ma ne naa la arrêté doo dem Bakel mu ne ko waxal sa supérieur hiérarchique Bougane day dem Bakel waaw mais loolu nag vraiment bu fekkente wax na ko waaw il a répété parce que noonu la demee xam nga xam nga police ak gendarmerie waruñu jël ay instructions yoo xam ne dañu illégal bu hmm. comprenez hmm. parce que quand suñu réew mi wax naa la droit nest pa pas hmm. et de venir dafa am ay décisions yoo xam ne police wala gendarmerie bu police wala gendarmerie bu koy jël dafa war a fondé wu sur une décision administrative te décision administrative boobu dañ ko war a motiver état de droit noonu lay fonctionner mais un commandant de brigade ou un général warul yeewu benn bës rek ne voilà kenn du dem fii parce que simplement président de la république dafay dem. vous comprenez xam nga loolu xam man bi ma juddoo ba tey ma gis loolu mos ngeen gis fu président nekk ñu ne citoyens yi buñ fa dugg. mais loolu amul fenn. surtout dans un pays démocratique comme le nôtre. voilà donc dama ñëw officiel non juge bi tranché en ce moment maître El Hadj Diouf mooy plaider. Mm-hmm. après ce sera maître Amadou Sall. Mm-hmm. donc ñoom xam naa bu ñu paree. dinañ mën a kii dinañ leen gën a mën a ah loolu xaw ma ci dara. loolu ah waaw tax ñu ñëw fii. Ah, en français. jërëjëf bon comme je dis on est dans un pays démocratique j'ai dit une fois que dans un pays démocratique on doit créer un équilibre un équilibre entre l'autorité et la liberté mais chaque fois l'équilibre doit être favorable à la liberté loolu mooy démocratie maintenant comment organiser ce, cet équilibre il faudrait que les décisions que la police prend n'est-ce pas soient sous-tendues par une décision administrative motivée parce que s'il y a des problèmes de sécurité quelque part il appartient au préfet de prendre une mesure un arrêté et de dire que de telle date à telle date il est interdit de, de fréquenter telle zone pour des raisons de sécurité. Et cette décision, elle doit être publiée pour qu'elle puisse être opposable aux citoyens sénégalais. Mais si cette décision n'existe pas, on ne peut pas prendre des instructions, les donner à des policiers ou à des gendarmes qui se mettent sur la route, qui, en dehors de tout contrôle routier, effectivement, le gendarme, quand il te contrôle pour des raisons, quand il contrôle ton permis de conduire, n'est-ce pas, tes pièces, il a le droit de t'arrêter. pour ce contrôle-là. Et si tu ne t'arrêtes pas, tu commets le délit de refus d'obtempérer. Mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Bougane n'était pas arrêté, n'est-ce pas, pour un contrôle routier. Et d'ailleurs même, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Le problème, c'est que après s'être arrêté et qu'on lui a notifié le motif pour lequel on l'a arrêté, n'est-ce pas, il a dit que je vais me rendre à Bakel. Parce qu'on est dans un pays démocratique. Il a même dit les mêmes mots qu'il qu qu avait. Mais oui, euh, il a dit la, oui, il a dit la même chose. Il a même dit la même chose. On a entendu les gendarmes et les policiers qui étaient là-bas. Donc ils ont dit qu'ils ont reçu des instructions pour arrêter le convoi de Bougane. C'est ça qui est grave. Des instructions venant de qui? Des instructions venant de leur supérieur hiérarchique. On leur a demandé, mais est-ce que les autres véhicules passaient? Mais les autres véhicules passaient. Donc si c'était une mesure qui concernait, n'est-ce pas, l'ordre public et les bonnes mœurs, on aurait dû arrêter tout le monde. Moi, on ne peut pas arrêter le, véhicule de Bougane et les Ndiagandia et les autres cars rapides passer. Mais c'est pour ça que nous sommes là. Aujourd'hui, je ne peux pas le dire parce que c'est le juge qui va décider s'il va rendre sa décision aujourd'hui ou s'il va mettre l'affaire en délibéré. yaakaar naa ni euh, comme ni nga ko Justin waxee léegi kii par rapport ak li nga xamante ne moom moo xew tout à nga xamante ni moom mooy waa Pastef fi ñëwoon ak ñi nga xam ne waa gëm sa bopp yi euh, kii di Babacar Justin daan na indi li nga xamante ni moom mooy euh, sa réaction par rapport ak coow lu mag lu fi amoon léegi mais heureusement que plus de peur que mais ñu xaar léegi léegi la ki nga xamante ni mooy euh, kilifa gi ki nga xamante mooy Hadji mbay Pekh euh, ku ne xam ne yaakaar naa ni euh, suñu papa la suñu kilifa la nekk koo xamante ni ku ne gis nañ ko bu baax a baax nu mel ak kii di président Bougane Gueye Dany topp na ko ba topp na ko ba Tambacounda fii nga xamante ni fii ñuy jugé ki nga xamante moom mooy président président bi nga xamante ni moom mooy président Bougane Gueye Dany ñu xaar un peu rek jàmbaar maa ngi ziar. ñu ngi lay delloo ziar. naka naka coono yi. ñu ngi sant li nga xam ne mooy li fi xew tey fii Tamba ñuy jugé ki nga xam ne mooy président bu Gana waaw loolu moom ñu ngi koy ñaawlu bu baax waaye ñaanal ko rek yàlla jeexal lépp tey ñu bàyyi ko mu jib ci ay mbokkam. maa ngi leen di fay. Eh, ah waaw. Eh, waaw. waaw euh, euh, euh, péete moo ko waral ragal péete day xañ a wërsëg gor su nekk gor nga bugaan bi ñuy ànd dara du dara mu mitti nu ànd mu neex nu ànd kon tey du mitti ma daw li may li may li may wax ak li may def nag Sénégal gépp laa koy boole ndax ñëpp dañ ma bokk dal teey wax lu baax nattu yàlla rek la bu ko yàlla teg ma ko jiiñ kenn nattu yàlla yàlla mi ko teg nag yàlla na ko fi yàlla jëlee ci moom mu jeex ci moom kilifa yu baax yi ñu baax ñeeg ñëpp ñëw nañu Tamba wax nañu li ci des nag mu ngi ci loxol yàlla waaye Sénégal daal benn bopp la benn bopp kenn du ko xar ñaar. tey euh, kaso waaw kaso jombul kenn jombul kenn nañ ko rafetal rek luñ fi fekk la des ko fi bayi li am solo daal mooy li may ñaan ci senegal yàlla tappe xol yi ba lépp nekk benn senegal xuloo xeex xaju fi senegal rëyul tey xuloo kuy xuloo di xuus booy laayoo te fasu mën a dem penc yóbbu fa dëgg ko gën yàlla na yàlla def jàmm rek sama digganteeg moom loolu rek ma indi ak wax lu baax ak fexe ñëpp nekk benn parce que man loolu mooy sama rôle waaw jërëjëf Donc nous regrettons que ce qui se passe. Nous regrettons aujourd'hui encore plus que jamais qu'on puisse disons, arrêter une personne qui n'a absolument rien fait, qui avait juste sollicité de, pouvoir passer, aller à Bakel. Et que les, les, les, derniers qui ont été, les vivres qui ont été achetés, waaw kaay wax ñu rek gis nga moom rek xaaral ñu xaar comme comme ñoom Abdou moom ni ñu ko defee rek benn déclaration bu taw d'accord d'accord d'accord. ñu ngi si jàmm waaw waaw voyage bi méttiwul benn point rek benn point rek. wala ñu leen foofu kon point bi. mais doo xaar ci pare ñu jëlandoo. ñëpp lay jël dafa la pare. yow dugal dugal dama dama ci enceinte dama ci enceinte. mais man maay Thierno Thierno mooy man. demal demal foofu demal foofu. waaw waaw waaw.